foofu ngeen bokkoon mais léegi bon avec euh, Mimi 2024 euh, ber ngeen seen daara ban appréciation ngay def si choix bi nga xam ni euh, porté nañ ko ci Amadou Ba. jërëjëf Der xam naa dina du la bett su ma jëlee contre wu li ma fi dégg du la bett c'est logique mais je préfère ma teg ko ci argumentaire bi ma yaa jàpp ni. Mm-hmm. am na fu ma koy weer. ñu ni Amadou Ba am na profil je n'y crois pas du kenn ci waa ci ñi doon xëccoo. ku ma gën ne am nga profil. parce que pour man le premier profil bu nit ku bëgg yor réew. mooy nga am le courage d'assumer ton ambition ton ambition. njiitu réew kenn du ko wut ci procuration il faut d'abord avoir le courage de diir bëgg naa ko nga teg ay jéego yu wane ni bëgg nga ko nga xeexi wuti ko mais kenn du bëgg réew par procuration kenn du kenn du bëgg réew ci xelu jàmbur ci doole jàmbur ci fitu jàmbur ci c'est pas une ambition normale ñi ma gis APR ñëpp dañu tëdd ci suuf di xaar ku leen bëggal c'est c'est d'abord le premier problème à mon niveau que je trouve anormal ci réew nu ñu nit mooy candidat mi dañ koo bëggal xaalis moom bëggul même bu bëggee ñeewu koo biral daf koy daf koy yellu bu ñuy wax ci ci julli ambition présidentielle lu important la du ay caaxaan kenn du ko wuti ci procuration kenn du wax nit ñi bëgg loolu moo tax d' abord ma am problème ak candidature wu Idriss Seck loo ko mën a dégg ci àdduna am na courage yu depuis vingt ans il assume son ambition je veux être je veux être et je me battrai pour l'être quel que soit nag soo ma plus reproché mais am na courage yu affirmer son ambition am na yeneen nit bu nu amee bu nu amul mais au moins depuis des années da ngay gis nit ñi am nañu ambition wu nekk président ñi nekk tey ci autour du président de la République di xëccoo candidat bi personne n'a jamais voulu ils se sont battus pendant des années pour wax ñoom mënuñu buggunu kii moo mën muy ab muy Macky Sall finalement c' est un désespoir de cause que nañ wax ni bon bu affaire bi yàqu nañ for mais ils n'ont aucune ambition pour le pays c' ça la vérité aussi pour pour être honnête si on doit définir d' abord un critère objectif d'un leadership parce que leadership bi bi kii di wax mooy lan leadership du école comportement la leadership c' est un ensemble de comportement bu nit di am même xale wala adulte damay digg ngeen ko tout tout le temps nit ku xëy màgg nekk dara nga topp histoire am mu war la bi mu nekkee xale amoon na comportement bi logiquement bu egsee fii loolu moo tax c'est un comportement comportement mooy nga am fayda wu bëgg dara xeex ko nga am fayda wu bëgg dara wax ko nga am fayda wu wax bëgg bëgg dara argumenté ko pour wuti ko maintenant tu peux le perdre mais au moins nga am courage yu assumer une ambition nga may ma Euh, Bas. foofu très rapidement dafa mel ni ci ni mu waxee Amadou Ba bëggul dañ ko bëggal. yéen vous êtes. Euh, non du ma du ma d' accord ci loolu. der xam nga may mais en 30 secondes. et puis je reviens à waaw moom laa dama wax ne. Uh-huh. ambition rawul. Mm-hmm. nga ñëw pour servir sa réew. Mm-hmm. nga nekk DG nga nekk ministre nga ak loo mënta nekk premier ministre. Hmm. loolu rawul ambition ambition du rek maa bëgg nekk candidat président de la République. loolu du ambition c'est ah non la parce que da nga ko liggéey. parce que parce que tegoo fa sa bopp xam nga c'est pas une ambition ça. Euh, ambition mooy. loo jóg di ko wutali sa bopp. mais c'est clair mais daf ko wutali boppam. xam nga lu tax ma ne la daf ko wutali boppam non non dafa jàng. ça c'est important de faire la précision tey da jàng. ba ngay jàng ah, da nga jàng am ambition servir sa réew. Ah, mais pas pour nekk ministre. mais bien sûr que tey kuy jàng bëgg nga servir sa réew ci poste boo mënta occupé. oui loolu c'est une ambition. mais Amadou Ba dafa am ambition pour yor réew mi. Mm. mais ambition pour yor réew mi mais dafa jaar ci lu ñuy wax loyauté ak fidélité. jëmale ko ci président de la république. Mm. ok looloo tax ñu tànn ko. merci Ablaye après yow dina dina. waaw ci même kii bi waaw après boo ñëwee sa tour bu dellu see nga dàbbali ci côté boobu. su man posé ko sax en terme de personne. bien sûr mais c'était na ci indi leeral tamit boo xam ni. dinañ ci def introduction. on est ouvert à ça. oui il permet alors est-ce que est-ce oui mun na leer très rapidement. oui. alors donc non, c'est pas la personne de Amadou Ba qui m'intéresse hein c'est le principe que Amadou Ba est un prétexte pour débat mm. bi mooy loo bëgg xeex wuti ko mën nga ñàkk mën nga am mais tu as le cas de l'affirmer c'est pas le cas muy moom di Aliou muy di Abdoulaye Daouda di keneen c'est pas le cas c'est tous des cas qui ont dit mënuñu bëgguñu Macky Sall yaakaar boo demee torox dem ni bokkuma ils se sont dit enfin on a pas le choix mais yow mi nu yaakaaroon ni yaa mën yaay def yow yow doon yaakaar wutaluñu ko wut baax na ça c'est pas de l'ambition mm. ça c'est pas de l'ambition mon cher mm. maintenant définis ça comme tu veux appelle ça comme tu veux pour être juste c'est pas une ambition bref oui oui mais après tu prendras la parole donc personne de ces gars si tu parles de critères en définissant comme ambition personne de ces gars n'a une ambition pour le pays c'est des c'est des c'est des procurés maintenant on verra après ça va mm. deuxième deuxième élément bi dans ta question da nga ko wax ni ko